mooy mooy dara lak jàmm xam naa ne yaa ma gën a dégg anglais sax man duma duma lay maa ngi taxale nag déggaguma carrément yaa ma gën a dégg yaa ma gën a dégg yaa ma gën a dégg waaw maa ngi tal fu may Sénégal ndeysaan man maa ngi dund Sénégal ah. li ma gis nii ah, ah. maa ngi dund Sénégal ndeysaan maa ngi dund Sénégal ndeysaan maa ngi dund Sénégal ndeysaan macha allah li ma gis nii maa ngi tal macha allah macha allah sant yàlla maa ngi dugg nuyu sama gars yi waaw waaw dugg nuyu sama gars yi fii ñëpp ay Baye Fall fu nekk mooy ay Baye Fall fu nekk voilà. Flirou Dia. sant yàlla. Baye Fall mag bi. waaw ñoo ngi ziar. yaa ngi jàmm. xam naa sama gars yi. ziar bu wér a wér. ndax ay kii am. fii ba ma ñëwee. tabaar si yàlla macha allah dama gis ni ma dalal vraiment yëkkati ma aj ma ci kaw dama defal ay trang loolu nag sant yàlla la li mooy woon ne nee naa leen man maa ngi dund Sénégal li may gis yi vraiment maa ngi dund Sénégal la waaw alhamdulilah ci kaw ci kanam ndax poytu ma place bi Baye Fall la muy ma Fall te géej way la dëkk ah. doomu géej way la macha allah mi ngi nii doomu géej way la booy bi tabaar si yàlla macha allah alhamdulilah kontaan naa ci yéen Ibrahima Fall yaa ngi jom may boy. <laughs> ah yaa am jom. day dund Sénégal day dund Sénégal. ah day dund Sénégal. waaw kay tey émission bi li nga gis liiru di ma laaj lan la yow tamit. mais day dem rajo wala fii la. waa en direct lay doon. lay siyaare ah dafa lay dafa lay gisee. waaw waaw. initiale. maa ngi lay delloo day waaj day dem di <laughs> non non non. jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen tatagal di am contentement mbégte dellu siwaat ak yéen fii nga xamante ni euh, moo di wasaare TV fa seen fee dalal ndaanaan bu mag euh, ñu gën koo xam ci. Euh, liiru Diane di yëngatu ci wàllum làmb liiru ñu ngi lay ziar. waaw maa leen di fay ay kiyam ngeen ñu nekk fii ci New York ba di nuyu nuyu vraiment di kontaan ci yéen ndax vraiment lii ngeen def ñu ñi ko bëggoon bari na boobu léegi vraiment xam nga rek mooy lool nangu ma ko woon sax waaye ngeen ñëw am noo leen ñëwee te yéen yow sama waay nga moo tax ma nangul leen ko maa leen ziar di nuyu waa Sénégal bàyyiwuma kenn wan la maa ngi ci jàmm maa ngi dund jàmm alhamdulilah ndax li may dund fii mi ngi mel ni fi ne maa ngi Sénégal waaw vraiment mi ngi mel daal maa ngi Sénégal waaye namu naa sama gaay yi namu sama gaay yi ku ci mel ni grand champion bala Gaye 2 sama rak sama xarit at sama doomu nday jéey seen ay jéey ay jéey sama doomu nday giar naa ñëpp di nuyu képp kuy champion Alioune Seye 2 ñoom Lac de ñoom tout nuyu naa ñëpp di nuy waa Guédiawaye di nuyu sama doomu nday vraiment jéey di xam ni daal nan la ko olof di waxee big big up big up boo koy waxee noonu big up mais liiru tey anglais di ko waxee nan anga ak big up mooy big up rek mooy anglais mooy anglais kon big up big mais liiru kon ñu ñu ñu ñëw ak yow Modou Mbacke ñu ngi koy bu baax a baax ñoom Moussa Fall ah ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar ñoom Balla Gaye de. doom bu ñuy wax minatu ndax xam naa namu na ma lool lool lool lool. waaw di nuyu nag fii ma dal. Uh-huh. muy père Babou papay Balla Gaye de. mais liiru nuyoo yi ma nuyoo yi di nga nuyoo di nga nuyoo liiru. dese nga ay temps. maa ñëw ci dëkk bi. Uh-huh. ñu dalal ma. ma mel ne ku nekk sama kër. di Sénégal dund lu jàmm loolu ku ko def. vraiment war nga leen gërëm sant leen muy père Babou papay Balla Gaye maa ngi koy gërëm fii ci New York papay Balla Gaye. Assou Faye ah, mère Assou mooy soxnaam ay. pen pen de gisee. gisee ñoom ñoo nekk ci consultat bi. Mhm. pen da gisee at kii. aji marem aji marem aji marem Diagne pen de gisee. doomu ndeyu nee na Talla ministre de la jeunesse ba nekk Guédiawaye. pen de gisee moom ci consultat bi la ne consulat bi consulat bi. Mhm. consulat bu New York damaa ñëw consulat bi ñu jël ma vraiment jàpp ma ci ñoom di bëgg waa consulat bi yëpp di nuyu consulat bi. bu fekkee la fa fekkin bu rafet liiru euh, tey ñu bëggoon a xam sa ñëw fii ci États-Unis d'Amérique. bi mooy sa première fois nga ñëw États-Unis d'Amérique. waaw bi mooy sama première fois ma ñëw fii wax dëgg yàlla xam nga rek euh, gis na nit euh, baax rek am solo soo baaxee bari jàmm foo dem xappi foo dem doo am problème te tubaarkàlla man bu ma ñëwee fii dafay mel ni gars dafay mel ni man fii laa dëkk dafay mel ni man maa ngi dund géejawaay dafa mel ni maa ngi dund géej fu ma nekk liiru liiru fu ma romb liiru liiru kon nag alhamdulilah kon sant yàlla sant yàlla baax a baax a baax a baax maa ngi sant yàlla. lan moo la fi indi lan lu tax nga ñëw États-Unis d'Amérique ndaxte gis nañu dégg nañu ni am nga combat le huit bii bii di ñëw incha allah rabbi nga bàyyi ko fa ñëw lan moo waral ñëw gi. non non bu lax bàyyi ko fa ñëw bàyyiwuma ko fa ñëw. ndax euh, loolu weesuwul ndax dama ñëw dama ñëw pour entraîner damay entraîner. dama ñëw pour entraîner c'est que man tamit bi ma bëreeg léegi yàggu nag le 15 décembre la bëre di nuyu promoteur bi tamit waaw. Euh, waa sénégalais yi ku mën nam daal nan xaar. mais mais mais mais ci le huit bi. waaw non le bi. mënatula ne ndax maa ngi fii New York ndax dafa euh, diir bi dafa gaaw daal affaire bi dafa xaw a kii dafa xaw a gaaw date bi moo xaw a dafa xaw a gàtt date bi moo xaw a gàtt te it waaw date bi moo xaw a gàtt. mais mais mais waxtaan ngeen si ba ñu ba ngeen jubóo ñi xam ne ñu pousse. am loolu amul problème loolu après la am na ñu waxtaanal am na ñu mu wax waaw. ndax ci mel ni sama doom day jéy seen vraiment dina waxtaan ak moom ñoom ñoo après loolu ñoom ñoo koy gérer dinañ waxtaan foofu waaw su ma waree dem rek man dinaa dem incha allah rabbi waaw. daal yow daal yaa ngi fi kon daal bu yeboo yeboo sénégalais yi jàpp ni le huit bi moom du mën a nekk ndax liiru mi ngi fi. non non moom du mën a nekk wax dëgg yàlla maa ngi ñaanal promoteur bi tamit mu réussir ci le huit. mais mais avance de. non non non man defoon dimbali yi mag loolu. man da ñëw fii pour da wax man kilifa laa man kilifa laa man du ma def loolu. man kilifa laa ma def loolu. di jël avance jaamu di dem non non non man dépassé naa man maay magu Balla Gaye man maay laa. ak di doomu nday jëy seen. voilà mais liiru dafa ñëw pour entraîner si wala dafa ñëw pour def yeneen li yeneen mbër yi def. lu mun mënta am man daal maa ngi nii. li may gis waaye mais mais mbir la def ñëw toog jàpp seen. waaw waaw non ku nekk ak gis-gis su ma waree toog naa toog waaye incha allah rabbi mom ku soxla sama combat fii xam na fi ngay jaar te soo fa jaaree am pour damay ñëw Sénégal barki Serigne Saliou Mbacke damay dem. waaye ñëw fi pour toog. non non non non waaye li ma gis fii tubaarkàlla macha allah waaw booy li tax ñu toog ñoo ko xam. waaw war man su ma maa leen di digal barki dem rek maa leen koy wax maa ngi leen la ku ci ñëw entraîné soo pare nga dem bëri Abdou Diouf ngi fi dafa ñëw pour préparer combat am mi ngi fi Abdou Diouf fi dafa ñëw pour préparer di dellu waaye nag ñu ñëw toog xaj li tax ñu toog li na jaral ñu toog dañuy liggéey affaire bi noonu la rek liggéey fii lañ fi ñëw def ñoom liggéey. Mm-hmm. waaw loolu la affaire bi loolu rek waaye loolu du dara amul benn problème. ñu dellu tuuti ci ginnaaw. fekkoon nañu gisoon nañu sa làmb yow ak wulli mu metti woon loolu ci yow Gambie. ci man. mais méttiwul ci métti ci man. bi méttiwul waaw loolu lay dara. Ah, sa dóor la nga génn si saako yi yooyu yëpp. waa merci de bu kan lañ jox victoire. ah mais yow lañ jox laaj kan lañ kon kay jeex na bul wax loolu kon comme yow lañ jox victoire kay alhamdulilah. làmb noonu la. ñu laaj ku dóor ku daan la ñuy laaj te man jox victoire. te lan moo waraloon xeex bi liiru liiru liiru di xool ba kii wulli jàpp ko di dóor ba si ginnaaw saako. kan moo kan moo dem ardo waaw mais. moo kan moo dem ardo wulli moo waaw kon boog jeex na. yow la cey est-ce que laa ilaha illallah Muhammadu dëkk baa ngi nii New York maa ngi nii fii mooy New York waaw New a ay New York waaye sedd na waaye nag c'est normal beg jamonoy tàngaay waaw non non li ngay wax lii nekk nii tàngaay la de li ngay la non non tàngaay non fi sol t-shirt fii koo gis mu sol jacket bàyyi say ngay yaa ngi nii ña mais liiru liiru bu lii lii bu seddoon waxuma la 18 yére waaye 180 yére yére ngay sol li ngay wax man yow yaa ngi sol ñaata yére seize ak jagat bi nga naan seddul seddul sedd na waay bul wax loolu mais waa waa léegi euh, ñu ñëw tuuti ci euh, liiru mbokk yi di leen euh, jaajëfal bu baax a baax di leen fàttali yéen a ngi ci wasaare lamb ngi ànd seeg ki nga xamante ni moom moo di ATM gentle animateur best of the animateur in the world liiru ñu ñëw ci Batika groupe boobu noonu gang boobu ak liñ lay yàq lépp ah, Batika moom dafa dof wérul Batika wérul dafa dof bi ko Lac de Guiers dóoree mu xëm ba léegi dafa am problème man nee naa ku ci bëgg a bëreeg man barki Cheikh Ahmadou Bamba di nga bëre soo ma fayee soo jaaree fi nga war a jaar billaahi wallaahi wa taalaaj ku ci bëgg man di nga bëre ndax xam nga benn affaire man damay liggéey rek man damay liggéey soo jaaree fi nga war a jaar billaahi wallaahi taala man suba soo de billaahi su ne ma weer wi di ñëw da ngay bëre man ma ñu nga jaar fi nga war a jaar ma dem Sénégal. liiru Batika di. waaye dimbali waaye nga am Batika di. Batika yow Batika yow naa gisoo Batika am yow yow Batika. dafa dof dafa dof. ba ko la déggee dóore mu xëmbaleeg dafa dof man maa la wax loolu. wéerul dafa dof man maa la ko dafa dof wéerul. liiru est-ce que li mu ñëw États-Unis moo tax mu tey nga taxaw fii naan Batika dafa. li ma nga am li nga ñëw États-Unis man ma nekk Sénégal man di waaye yow nga am ay li nga ñëw États-Unis man dafa am lu may kii nga am man dafa faale Batika kat may Batika kat may Batika Batika dafa wéer Batika di dof man maa ko wax dafa la naqari wéru kenn naqari ma waaw kon nag ba kon nga téye sa làmmiñ non non non a nga téye sa làmmiñ ba ci lan soo waxee loo moo tax dama la koy dandu nga am sama doomu ndey. doomu dafa am dafa entraîné dafa am doole dafa mën a bëre. 15 ans bëriwul 15 ans ans. mais yow yaa ngi nii amoon nga fi problème mu bëri ba ma sant yàlla ñool ma génn ca ba ma toogee lu yàgg ba ma ñëwaatee tamit alhamdulilah maa ngi sant yàlla daal. maa ñu ñëw tuuti si accident boobu noonu nga tudd. na naka la demee woon accident. sama sëriñ ba sëñ Cissé mu sëñ Babacar sëñ Modou Faye ca jàmm gën ndeysaan sama sëriñ la ak mm. gasama ah sëñ Modou Sey borom taw féex maa ngi koy ziar sama sëriñ la sama xarit la ah ak ah, sama sëriñ ba oh, sëñ gasama. gasama xam nga man soo ko soo gisee ma leen di tudd ñooñu c'est normal xam nga nit. soo amee ay sëriñ yoo xam ne dañ laa sopp bëgg la ah ak sërif tàmbeedu sërif tàmbeedu sama sëriñ la sama xarit dan maa bëgg sopp ma ak prince prince Mouhamed prince mhm. samay sëriñ la dañ maa bëgg te man ku bëgg ma bëgg la sëñ Samba sa Touba ku bëgg ma bëgg la maa ngi leen ziar ñoom ñëpp de ñooñu ñëpp dinañ si ñëw sëriñ lan samay mais mais mais mais mais liiru ñu ñëw tuuti ci ci ci ci ci Batika Batika Batika ah, dafa dof dafa bëgg a bëreeg man su bëggee bëreeg man dina bëre nan ma fay xaalis barki Cheikh Ahmadou Bamba su bëggee bëreeg man dina bëre man ku bëggee bëreeg man di bëre loolu yàllaa ko def amul benn problème man daal maa ngi fi. mais mais mais am na wala am na beneen coow ma fàtte liiru sénégalais yëpp nee nañu yow da nga ragal wulli ndax doo dooma yu métti mu la duma woon gàmm moo tax nga daw combat bi. yaa ngi bëgg a nekk saytaane. non barke sëñ Bamba yaa ngi bëgg a nekk saytaane. yaa ngi bëgg a nekk saytaane ndax soo nee damaa ragal wulli saytaane nga. non non sénégalais yee ko. man damaa faale wulli man. ah mais sénégalais yi nee na dóor dóor yee metti moo tax nga baka fa. wallaahi wallaahi wataalaahi combat bi barki sëriñ Fallou Mbacké tey am na fu ñu doon jaar combat bi dina taxaw. dañuy bë damay bëre damay fay xaar combat bi bëre waaye xañ na dafa am nu mu demee moo tax am na loo xam ne après kenn mënu koo wax daal si kanam. est ce que du li ko bébé Saloum yóbbu Sall di ko entraîné ak li la bébé wax yëpp. li jëntuwu ko faale mu am na lu ko doy. bébé Saloum lu mu na lu ko doy noppal na ko ba dimanche moom dajeeg njaago bi ay franc <laughs> franc boobu bis bu dajeeg moom dina xam ne lépp dëgg la moom am na lu ko doy na gérer loolu. man sama dégg yow dégg nga li la bébé dégg naa lépp te moo su nekkee fii tey jii na dem nag du ma ko wax. doo liiru jaan nee na màggatum moo xam affaire moom su ma nekkee màggatum jaan moom Bébé Saloum lan la. bu ma taxa wax waaye. bu ma bu ma mer. wulli kañ ci saal bi leen ma wulli ci nekk lu ne nañ la yàq. xam ñoom ñaar seen affaire la waxuma loolu nan dem ci beneen bul ma waxee waxi Bébé Saloum sama yoon nekku ci Bébé Saloum sama yoon nekku ci Bébé saalum bul ma waxi Bébé Saloum waaye. waa ñu ñëw ci euh, sa sa xarit. sa doomu ndey Aliou Aliou Seye. sa rakk sa xarit tey mu dem ci làmb ja lem bu rëy boobu am fa est-ce que tey yaakaaroo ni loolu du yàq làmb jamono ji. loolu kan la ci ñan la. moom ak ñàkk jariñoo waaw dama lay laaj ñoom kaaw ñàkk la Alioune Seye dafa ñëw pour bëre te pare na pour bëre ñëw booy bi ñëw xëpp ko kenn xamul saw la ko xëpp kenn xamul lu ko xëpp lu xeeñ xunu. ah mais mais mais mais mu téye boppam. pourquoi muy téye boppam. dañ ko def benn yoon il y fois. yaa deux fois ñu def ko ko. suñ ko defee ni lii bu ko defee mu yàq làmb ji kañ. mu mu mu téye boppam. su xa non lan la def téewul boppam ñu xëpp ko li mu koy xëpp kon koy téye na boppam. moom moo tooñul dañ koo tooñ. billaahi wallaahi boobu su bare woon xam ne lépp dëgg la. làmb nag moo demee noonu li tax ñoom ñu def loolu xam nañ ko. li tax ñu def loolu xam nañ ko Alioune Seye préparé combat tax ñu def non ñoo ko xam seen affaire la ñoo ko xam. yow ko yor nga ko. man li tax nga xam ne suñu bëree woon dañuy daanu. suñu bëree woon su ñàkk bëree woon Alioune Seye da koy daan loolu la rek waaw ah, noonu la fa dégg dégg naa ñuy wax ni Balla Gaye yaa ngi yaa ngi ko doon wax sànq nii nga naan Balla Gaye lii Balla Gaye la mais ñu bëri dañoo mere Balla Gaye ndax nee nañ ndax nee nañu mbër yi ndaw yi nekk ci biir écurie bi bu ñu dee bëree Balla Gaye du teew. mais mais mais mais mais c'est pas vrai soo ko waxee loolu waxoo dëgg loolu amul. loolu waxoo dëgg loolu amul c'est pas vrai waxoo dëgg. loolu waxee waxoo dëgg waxoo nekkoo Sénégal yaa ngi fii munoo xam li nekk fii xam li nekk Sénégal bul wax loolu. gis naa ku nekk sa stade bi di kaas. nga ne. bi Aliou di bëre am na ku nekk si biir stade bi di kaas naan am na mbëri yoo xamante ni dañoo jàpp ni lii. Balla Gaye ñëpp Balla Gaye ñëpp seen doomu ndey la. Balla Gaye amul kenn xaar ma yàlla loolu loolu déggoo ko fenn. Balla Gaye la kenn xaar ma yàlla bala Gaye ku ci am bis mu jàppale la mu taxaw la nekk sa xarit moo tax nga koy man ñëpp samay xarit lan parce que Balla sama rakk la man ñëpp samay xarit la Aliou Seye sama rakk la Lac de Guiers sama rakk la Sa Thiès sama rakk la ñoom ñëpp samay rakk aw ma kenn xaar ma yàlla man kooku man man seen kilifa maay monument Guédiawaye loolu yàllaa ko def ku mu neex ku mu naqari loolu yàllaa ko def yow saytaana nga yow. ko wax Balla Gaye du du ñëw si si combat booy. waxoo dëgg c'est pas vrai bu ku ci am combat dem gis ko mu jàppale la Balla Gaye Guédiawaye suñu amoon fukki yu mel ni Balla gay wala ñetti ñu mel ni Balla Gaye nga xam ay yow yow xoolal dimbali. lu tax lu tax loolu. non li nga wax nii loolu amul. li wax nii loolu amul. loolu am nañ ay monuments yu bëri yeneen yu dul nga ne géej soo déggee ma wax la loolu. Balla Gaye Baye Fall la Baye Fall la te ñëpp la seqal jam amul kenn xaar ma yàlla man maa wax loolu man amul kenn xaar ma yàlla. mais lan moo tax du dem ci combat booy yi ndaw yi. si kii waxoo dëgg c'est pas bul wax ni du dem ci combat booy ku ci demul sa combat tamit gis na la bàyyi sa yi ngay wax bul wax loolu waay yow bu noo nekk fii xam la nekk Sénégal. mais maa ngi suivre actualité yi maa ngi maa ngi xool làmb yi man ci làmb laay man nag maa fa nekkoon man maa fa nekk man maa xam lépp man. Balla Gaye ñëw na ci combat Alioune wax donc kan. Balla Gaye ñëw na ci combat Alioune Seye. combat Alioune Seye. nekk foon waaye déggante na ak Alioune Seye. ma ne ñëw na wala ñëw. déggante na ak Alioune Seye nekk foon waaye déggante na ak. du kon booy yi li ñuy kaas kon li booy yi di kaas kon est-ce que amul. ko benn booy bu kaas ku kaas it ba la euh, kaasee génnaat nga waxaat nga bàyyi sa yooyu ngay wax. Ah, kon am na ñu kaas oh, non non koo mënta kaas tamit génnaat nga waxaat nga bul wax loolu ku kaas tamit génn naan nga waxaat nga. lan lan ngay ñëpp samay rakk lan. lan ngay préparé jamono ji. maa ngi liggéey maa ngi entraîné ku man daal ku ma soxla. Mhm. xam nga fi ngay jaar soo fa jaaree amu problème. ma jëm ñibbi maa gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm waa Géejawaay di euh, nuyu Mbaye Gueye Faye moo ma may jox montre bii ndeysaan Mbaye Gueye Faye xam nga ko Mbaye Gueye Faye xam nga ko Mbaye Gueye Faye moo ma jox montre bi yee kon nag sama nijaay la sama lépp la at Abou Gueye mhm. Abou Gueye kooku gorom la abu Gueye sama waay la Abou Gueye Chéri fay Faye Chéri Thiané maa ngi nuyu Modou Mbacké sama doomu nday Dieye Sène Moussa Fall waa Géejawaay yëpp maa ngi leen bay ma kenn di nuyu sama yaay namu naa ko at sama doom Papa Ndiaye namu naa sama soxna sama aaw budub Ah, benn jabar laa am. sama dégg naa yaa ngi waay takk ñaar dimbali ma bul ma tojal maa ngi nii bàyyi ma bul ma wax ay wax. dégg naa yaa ngi waay takk maa ngi ñëpp Sénégal dina mu waa notaire booy zoo. waxal si ñaareel bi waa bu demee waa Gunaas nuyu naa ñëpp di gërëm waxal si ñaareel bi ñëpp kuy mbër sa way maa ngi lay bu bët di si ñaareel waxi ñaareel da ngaa dégg man na damay takk ñaareel ah, man dégg naa yaa ngi waaj ma bàyyi Sénégal yéen a yem mooy ah, genre Lamine yi Lamine a yem da ngeen a nuroo sax yéen ñaar wóor na yàlla da ngeen nuroo wuy ma da ngeen nuroo maa ngi nuyu uh-huh. waa consulat bi consulat bi ci boppam maa ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm kontaan naa gis naa ni ma uh, at kii gis naa ni ma taxawoo du nuyu gise Gissé Penda Gissé mm-hmm. doomu ndayu uh, Néné uh, Tall ministre de la jeunesse mm-hmm. du nuyu sama maire ba nekk Guédiawaye Aliou Sall sëñ Madou Seye borom taw feex maa ngi koy nuyu di ko sant sama sëriñ la ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar ku rek damaa juum maa ngi ziar ñëpp du nuyu père baabu bi ma dal këram papay Balla Gaye ak maire Assou Faye ak nuyu diaspora bi ñëpp ñëpp ñoom alam ndaa sama doomu nday ñëpp Malick si nag bi xañe si ci waaw ñu ñëw si digg ñu ñëw si diggante euh, Abdou Abdou Diouf ak Gris 2 waaw noo gisee combat boobu la grand contre petit grand contre la parce ah. que yaakaaroon ni dafa diis Abdou Diouf non non non diisul ci Abdou Diouf la nag la Gris 2 xale la ndax la ndaanaan la champion la booy bu yar la waaye Abdou Diouf tamit champion la ndaan Abdou Diouf daan na Gris ba doo xama lool Abdou Diouf daan na Gris Bordeaux mag ah, waaw daan na mais mais mais mais mais mais Gris Bordeaux daan mais daanu Gris dama lay wax lamb la Abdou Diouf lamb moo tëradi rek waaye heure boo doon fekk mu dépassé fii waaw lamb moo tëradi nag waaw lamb noonu la lamb noonu la grand contre la daal combat bu neex la Abdou Diouf yàlla ko yàlla may ndam. sa digganteeg la dëggeer de. sama rakk la sama xarit. sama rakk nee na da ngeen nekkoon foofu di manifester wu dem ci géej ga di. wax ne ngeen wax dañoo soxor dañoo soxor dañoo message xam nga ñoom ay saytaane lañu genre bataka yi ay saytaane lañu mais mais wax na dëgg tamit yéen dem ñun géej géej pour Batika kase kase. oh yaa ñeme yàlla pour Batika Batika ñun dañoo yëngal ñun Batika dañ ko jël dañoo fàtte. dégg naa da ngeen kaa programme ne dégg naa da ngeen ko programme ne da ngeen dem géej ga. pour demee. Mhm. dañoo dem doy en train di préparer combat boobu Alioune Seye mi ngi préparer man ma Alioune Seye mi ngi préparer la fa demee. Mhm. waaw noonu la fa demee ñuy préparer son combat. Papa Sow Siteu naw gisee diggante boobu. combat bu neex la waaw ba tey grand contre petit la lamb ji loolu moo koy neexal day neex waaw grand contre petit la ba tey lamb combat bu neex la. est-ce que Balla yoon la. Balla Gaye hmm. amul lum ciy gagné. Balla Gaye gàcce ngalaama àgg na. li tax ba amul. ma ma amul lum ciy gagné Balla Gaye gàcce ngalaama. Balla Gaye àgg na. ca ma sofe yàlla ko yàlla fa cat. Hmm. gis nga combat boobu. boo Niang moo am lum ci gagné. dina ci am xaalis am ci coow waaye du ci am dara. loolu rek la ci mën a am coow at xaalis. non non non loolu ci am dara du ci man maa la wax loolu. mënut a ba du si am dara daan daan daan tey boo ñaa daanoon Balla Gaye tey ba loolu leneen. boo ñaa fu mu jaar dafa mën a daan bala Gaye boo ñaa am na qualité bi am na qualité bi mën na bëre am na doole te xale loolu xale la ndaanaan la champion la kullu fadlin moo tax moo egsi fii bo am droit di ko laaj Balla gay ndaanaan la waaye bala Gaye de doomu Double Less ji séeri buri bàcc li magi saa kees bàyyi Mouhamed bàyyi sëñ Saliou rakku kooku ndaanaan ku la faddalin la champion. booy ñaaw la. booy kenn wëral tuwul ndaanaan la ndaanaan moo tax mu egg si mu egg si laax nii. mën na bëre. ndaanaan moo tax muy laaj bala Gaye. na doole. kenn wëral tuwul loolu. xale la. d' accord Balla Gaye xayoo léegi Balla Gaye du xale. waaw ah, mais Balla Gaye mi jëm mag. mi ngi jëm mag. waxoo dëgg c'est pas waxoo dëgg waay c'est pas vrai. mooy rek la Balla Gaye saa kees moo topp ci moom. mais moo ba déglu ma bul wax loolu lu ko magee ko magee bëriwul moo ko mag waaye ko magee bëriwul tey saa kees moromu booy ñaala booy euh, moo topp ci Balla Gaye saa kees moo topp ci Balla Gaye wax waaye pas vrai waxoo dëgg ngaa magee na ko 10 ans. yaa soxor waaye booy la. Balla Gaye su amee 30 ans 32 ans 33 ans si la yem. mais ñëpp nee nañ magee na ko 10 ans. c'est pas vrai booy ça va doy na sax wax. non kaay waa kaay waa kaay waa. non waaw waaw mais waaw mais waaw mais. waaw waaw léegi nag 10 ans waxoo dëgg c'est pas. non magee wu ko loolu. waaw léegi lu mu ko magee. Balla Gaye xam nga lan la xaaral ma wax la kii Balla Gaye 2 mooy xale bu am jom am fulla am fayda lii tey ci am na. yor yor ñaari jabar déglu ma yow yaa ñi may yàlla ku la wax Balla Gaye ñaari jabar waxoo dëgg. yow yaa ngi ñemey yàlla booy doy na nga am ay Balla Gaye ñaari nga am ay Balla Gaye ku lax Balla ñaari jabar la yor ah? amul woon ñaari jabar waaye ku lax ñaari jabar benn la yor séeri buri bàcc lii bàyyi bàyyi Mouhamed bàyyi sëñ Saliou euh, jërë jëf mbokk yi tey ñi ngi fi nga xamante ni moom moo di between euh, Lexington ak Third Avenue fekk fi liiru mais liiru la def fii waaw kii kan la ay kii am journaliste bu mag boobu. Lirou Diane waaw New York sama doomu ndey waaw maa ngi fii. di nuyu ñëpp di nuyu waa Sénégal. Mhm. namu naa Sénégal. ndeysaan waxatuma Géejawaay sama sama sama mooy fan Géejawaay ay Géejawaay ay Géejawaay di namu sama gars fa nekk. Balla Gaye 2 grand champion Dieye Sène ah vraiment namu naa gars yi waaye Sénégal képp ku sa Modou Mbacké sama doomu ndey. Aliou Seyde ah ñoom ñëpp la. nam nga ñëpp ñëpp la nam Sénégal Sénégal daal tout. nam nga ñëpp waaw maa ngi fii xam nga ma fekk nii. waaw fu may consulat bi. consulat fi nekkal Sénégal mooy fii. fii nii nag xam ba fi nekkee ñoom yàggul dañ fee tuxu si. yàggul fii nu Lexington ak Lexington. ak Deux Ava. Avenue Lexington. deux avant nin ci New York. ay New York laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam bi kii nag sama doomu ndey la sama xarit la wax ma si kii kii mooy Habib Mbaye doomu Mansour Mbaye papa Mansour mbay kii doomam la kii mooy Habib Mbaye kii mooy Habib Mbaye sama xarit fii lay liggéey ci consulat bi mm. consulat bi tamit nekk ku baax pour consulat bi nekk ku baax ñëw rek gis ma rek bëggal ma boppam mm. bëggal ma boppam xam nga loolu dafa neex dëgg la loolu dafa neex waaye sant yàlla daal sant yàlla du nuyu sama jigéen bi Penda Guissé doomu ndeyu ah, ministre de la jeunesse ne na taal koo koy Penda nekk fii ci consulat bi quoi hmm. consul Alaaji Amet Alaaji Amadou Ndaw Alaaji Amadou Ndaw mooy consulat bi mooy consulat bi kooku mooy ay consul général bi kooku mooy consul général bi maa ngi koy gërëm di ko sant ndax vraiment daal du ma ñëwee fii daal ba léegi daal gis naa ni ma jàppee ak Penda Guissé ay Penda ak Margot sama jigéen sama xar. ñu nekk ci consulat yëpp maa leen nuyu. di leen sant waaw ñun ñëpp di nuyu waa États-Unis New York. Habib Mbaye Habib Habib Mbaye kii sama ah. doomu ndey la sama frère. consulat baa ngi nii riz bi la ko gars yi xam. riz ba li duuf si nag bi xajul ci cin li riz bi nañ ko nañ ko tënk. li sin tonne. waaw acteur amaliwu.